mauvaise qualité des semences d'ailleurs nga comprendre on est à 700 000 tonnes. ok voilà mais maintenant tey jii sénégalais et donner les explications il n'y a pas à se cacher cette campagne c'est un échec sur le par rapport au rendement par rapport à la production c'est un échec maintenant faisons en sorte que la commercialisation ne soit pas un échec. Hmm. Moi, je nañu fexe ba ñii constituer le capital semencier.

des profils yu nga xamante ni ñu bari amoon nañ mbégte pour ñu dem ci assemblée bi ndax seen taxawaay ci réew mi ak yeneen yi ni mel euh, waaye législature bi liy particularité mooy dañoo jógee ci législature quatorzième législature bu nga xamante ne ñu bari dañoo jàpp ne <coughs> catastrophe la woon. Ah. waaw ñu bari waaw ñu bari <laughs> ñu bari loolu la ñu loolu la ñu waaw donc donc donc ñu jëm ci 15e législature bi euh, euh, installation bi lundi la incha allah lan ngay xaar ci ci boobule législature ak euh, installation bi mbaa du mel ni comme installation 2022 ba <laughs> non installation 2022 du ko nekk parce que Pastef a une majorité mécanique mécanique waaw lu loolu la bah, majorité absolue la am yow oui mais absolue et mécanique pourquoi mécanique c'est le nombre non, le nombre ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas dire que ce sera mécanique. Oui, ce sera mécanique. Ah, non. Ce sera mécanique, Momo. Parce que c'est une majorité mécanique. 130 députés sur 65, ça te permet de tout faire à l'Assemblée. Et c'est mécanique. amul werante amul débat de débat. Si on désigne Momo Cissé président bu 130 yëkkati a wax débat de fa diw débat donc c'est quoi c'est ça la majorité mécanique. mais Bachir wa Pastef dañuy wax ne ñom même bu amé majorité bu max sax absolue il ils ne feront pas comme comme majorité mécanique on les attend au tournant on les attend à l'œuvre mais pour l'instant il faut constater que leur majorité est mécanique. d'accord voilà maintenant ndax def comme député yi la ma assemblée bi il faut pour ñu xam ki def li ak ki def tout ce qu'on sait c'est que ils ont une majorité mécanique maintenant fal nañ député yi fal nañ euh, euh, résultat yi donne officiel président de la république jël na décret convoqué na defé na le 2 moy nek installation assemblée nationale donc le 2 lan lay démé première chose ñaar ñoy présider assemblée bi. loolu la loi bi wax. ki gën mag ci député yi assisté de ki gën ndaw ci député ci ay ci at. donc xam nañ ni defe na doyen. Alla Kane moo si gën a doon mag. Mhm. defe naa am na beneen xale bu jigeen bu ñu wax ndey Marie xawma mam mari Marie je sais pas comment. Mhm. ñom ñaar ñoy tok bu ñu defee lu ñuy def def l'appel nominatif ndax Mamadou Cissé bi ñëw c'est le vrai Mamadou Cissé bu ñu investir parce que gisoon ngeen installation ba le passé am na koo xam ko duggoon na ci biir té du député donc éviter yoy non donc dinañ ko def def l'appel nominatif installé mhm. bu ñu defee loolu ba paré. première chose tan kan moy don président assemblée nationale d'accord bu ñu nee tànn nañ ko ñu né kan mo bëgg don président donc ñi amé majorité ñoy proposer kan nga ci xalaat et ce sera mécanique xalaatoo ci Ousmane Sonko mën na nekk moom comme mën na Ayib Dafé, comme mën na El Malick Ndiaye. Hmm. voilà donc mën na nekk tam keneen koo xam ne man xaaruma mais man dama jàpp ni trio qui noonu si le président de l'Assemblée. di génn si sama xalaat comme mën a génne si mais en tout état de cause une fois le président de l'assemblée nationale désigné la séance est suspendue. d'accord buñ ko suspendre ñaar ñi présider woon affaire bi le président égalité travaux après ñu le bureau bi bu ñuy bureau bi dañ koy par disons euh, parité président bu vice-présidente premier bu et ainsi de suite benen bi tamit nit ñi inscrire dans les groupes parlementaires ñi bëgg dans des groupes dem ñi bëgg nekk député non inscrit def donc loolu yëpp dañ koy def jour boobu noonu bu ñu la ñu lañ président euh, groupe parlementaire groupe parlementaire bi groupe parlementaire bi on connaît le bureau et puis liggéey assemblée commencé d'accord voilà maintenant bu liggéey assemblée commencé aujourd'hui nag moomoo dafa am ay interrogations yoo xam sénégalais yi dañ ci xaar assemblée bii. mooy benn bi mooy jàpp ni on doit nous faire une loi de finances rectificative bu war a assemblée nationale pour ñu wax ñu dépenses yi nga xamné avril ba tey ñu ngi koy def nak lañ ko défé dégg nga fi ñu wax waxu eurobond dégg nga fi ñu wax ni dañoo dem récupérer war xam 153 xam 180 milliards dégg nga ñu dem ci marché UEMOA gis nga ñu organiser élection mais loolu yëpp c'était pas prévu donc assemblée mo wara organiser mo wara autoriser les dépenses donc dañ ko wara indi lolu mu valider les pensions. non lolu loi de finances rectificative elle est obligatoire Bien. Mm. ñaarel bi loi de finances pour 2025 war nañ ko tek ci table assemblée nu mu gëna a parce que Momo, le temps joue contre ce parlement ndaxte qu'est-ce qui va se passer on risque de rentrer dans l'année 2025 sans avoir voté le budget 2025 té bu boba loi dafa constitution dafa né mhm. su fekkente ne dugg nañ ci at bi té voté wuñu assemblée euh, budget bu bees bi le président de la république est autorisé à reproduire les crédits de l'année antérieure mais maintenant bo 2025 2025 té voté wuñu budget 2025 mhm. budget 2024 bifima bi fi Macky Sall de woon boobu jël continuer diko exécuter. d'accord kon nak bu fekkente ne nga gis ni par exemple nawet dafa jot Touba am inondation ministre ba dem fa ñu ko monsieur le ministre li nak mu ne du suñu nawet xaar leen ba suñu nawet ñew kon. <laughs> du suñu nawet loolu moom dama ma. quoi kon tey jii nii bu dégg du suñu budget ah. kon nañu gaaw voter budget bi. motax nak budget bi ñu jëm du doon lu ma gënal mais on risque d'aller vers un vote de budget sans débat parce que le temps est contre ce pouvoir là. le <laughs> temps est contre ce parlement là. et la DPG. Ben, mooy troisième point bi amna sax ñu japp ni ñoo tek budget té premier ministre ñewul def DPG parce que premier ministre moo toog jàkkaarloog sénégalais ci grand théâtre lan la leen wax né leen assemblée bi elle est illégitime pour mo dem def ak ñom sen DPG. Mhm. donc dama wara def DPG. kon l'assemblée qui est légitime am na ñuy nous ñoo xol lu ñu organiser nu mu déclaration de politique générale premier ministre. Mhm. mais aussi y a une tradition républicaine qui xamné dafa wara aussi juste après l'installation de l'assemblée. après chaque élection législative la tradition républicaine veut que le premier ministre dem ba ci président joxe sa démission au gouvernement président bu koy reconduire reconduiraat ko assemblée nationale ça, yu un remaniement dafa wara l'on ça fait partie des traditions républicaines donc si vous installé l'Assemblée, Ousmane Sonko va présente présenter démission au président Diomaye mais s'il présente sa démission au président le président Diomaye ne na ko reconduire qu'on reconduise les mêmes ministres comme aussi mën na ko reconduiraat ñu changer ay ministres. Ah, ki ñu jëlé ko fi yóbbu ko fële. am na ministres ils sont ils sont ils sont dans la liste est-ce que ñoom dañuy des ci ci assemblée bi wala. dañuy dellu dellu ci gouvernement bi mën nañ ko reconduiraat aussi mu changer ay ministères yokk ay ministères té bu boba bu ko xaar parce que il va falloir adapter le budget à l'architecture gouvernementale. Hmm. xam nga tay ji ma jox la ben exemple on a un ministre des sports, de la jeunesse et de la culture. Hmm. ministre ne rire rire. Le ministre boobu noonu les acteurs culturels se plaignent que nous avons un bu war ci ministre oui ça c'est clair. voilà mais est-ce qu'aujourd'hui, le président Diomaye bu demoon ba une culture foofu noonu war ko def ministère donc ça va scinder. Les jeunesse bonne sport. bonne culture ça va scinder et quand on aura scindé le ministère donc vous faites contenir des le budget il faut nous nous gardions pour cabinet ministère de la euh, de la, culture nous budget est-ce que tu vois ce que je veux dire donc la tradition républicaine elle est là mm-hmm. elle doit être respectée président Diomaye doit recevoir la démission du premier ministre Ousmane Sonko mm au président Diomaye de lui renouveler sa confiance et le de le renommer premier ministre donc déjà constitution la démission du premier ministre entraîne la démission du gouvernement. oui donc on doit reconstituer un nouveau gouvernement. mais tu penses que comme c'est une tradition républicaine est-ce que nous, avons les traditions républicaines là non nous, nag Il y a beaucoup de traditions qu'ils n'ont pas respectées. Quand je jox la un exemple. Quand vais la donner un exemple. Oui. y a beaucoup de traditions qui ont été dafa respecté les anciens patrons de la police les anciens patrons de la gendarmerie, les anciens patrons de l'armée, la tradition d'aller nommer ambassadeur. Pour deux raisons. Benbi, quelqu'un qui est patron de la gendarmerie, il est général, mhm. il a un traitement à vie. Moi, madame, boo ko fay 100 millions waxuma lolou lay 100 de. Mhm. boo fay 100 millions. Mhm. ba keroog 100 millions est-ce que c'est judicieux de payer quelqu'un 100 millions de dollars? alors qu'il est encore dans mën comme ambassadeur donc nous mo nous indi ñu nous don jël utiliser comme ambassadeur d'accord benen bi mhm. quelqu'un qui a été patron de l'armée patron de la gendarmerie patron de la police mhm. qui a été patron de troupe boko baye muy végété ça peut faire nourrir des choses dans la tête de quelqu'un surtout que qui ont été longtemps sous le commandement donc pour éviter yoy nous nous, nous don le commandement mais xoolal tey jii nii ba ñu fi ñëwee ba tey wàccee nañ patron police wàccee nañ patron gendarmerie wàccee nañ euh, Moussa Fall ñu ngi seen kër yi tëdd di xoole bul xaar ñu def leen ambassadeur voilà muy benn beneen bi ana général kande mu ngi fii këram newoon woon këram newoon nañ dañ koy def attaché militaire kenn defu ko attaché militaire mu ngi fii këram yooyu noonu yëpp moo tax may la quelque part quand tu dis ñoom tradition républicaine ndax xam bon ko boo xoolee foofu da ngay ni effectivement c'est des gens qui ne respectent aucune tradition et c'est ça et c'est dommage jërëjëf et c'est dommage que suñu temps bi dafa xat parce que dafa am émission bu war a à 18h00 jaajëfal mm-hmm. naa la bu baax a baax Mouhamadou Bachir waaw jërëjëf Momo jërëjëf maa ngi lay nuyu di le ziar bu baax Khadim Mbaye je ne demande pas la démission du premier ministre c'est le c'est la tradition